waa DK TV maa ngi leen di nuyu ak yéen ñi bëgg surtout DK TV people yëpp maa ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax. sama digganteeg Viviane dafa yàgg depuis sama sama sama première jëkkër bu ma njëkk a am euh, boobu maa ngi sëy Kaolack sama jëkkër bi ma doon sëyal ak Bakane Seck ay xarit lañ ma nekk xale. franchement bëgg Viviane sama jëkkër yóbbu ma ba ci Viviane suñ première soirée ak euh, Viviane c'était deux mille euh, c'était deux mille cinq deux mille cinq deux mille six euh, Gambie la woon Viviane di tëgg Gambie sama sama sama borom kër woo Bakane ne ko sama soxna dafa bëgg vivian et puis dañu nuroo ñoom ñaar baakar ne ko sii temps yooyu nag maa ngi nekk xale comme dama xees weexoon ñu ma daan nuróole ak moom mu bëggoon ko nag sama àddina vivian moo nekkoon sama artiste préféré en plus euh, sëriñ Saaliw di sama sëriñ ma nekk xale nag di fowee loolu sama jëkkër fexe ba ñaar ñooñu ñëpp gis naa leen ba un jour mu ne ma desalatuma la dara léegi yóbbu naa la ci sa soppe Viviane yóbbu la ci sa yaakaar Serigne Saliou ma ne ko il faut que ma gis Youssou Ndour Youssou di tëgg mbuur sali mu yóbbu ma ba foofu waaw euh, Viviane depuis ma gis ko mu mu oyof baax sama relation ak moom depuis lors maa ngi ko gardé mu nekk koo xam ne yaay la mag la. mu nekk fan si simple ma bëgg ko te yàlla tax mais ba ma demee ba fréquenté ko nag franchement euh, cofeelu fans ak ak ku mu sopp dañ famille duggu li dugal famille mooy mu wan ma oyof ak genteem xam ni je mu couvrir ma yàlla dogal ma génn ci télé bi moment yooyu mi ngi nekk ak sama patron Bouba nduur papaay xale yi buuba di ma jàppale ci sama carrière Viviane moo ma daan solal buuba daf ma daan yóbbu ba néegu jabaram néegu Viviane ubbi armoire bi mu ne ma tànnal lu la neex Viviane naan ma tànnal te nga gëm sa bopp te xam ne yoon bi ñoom liñ mën mooy teg la ci télévision li ci des yow yaa koy fight pour doon suba li nga bëgg doon te franchement ay conseil ba ma ko ba ma ko jàppee ba tey gisuma ci lu dul njariñ moo tax Viviane sama yaay la sama mag la ah dama koy ñaanal rek jàmm loolu moo ma boole ak moom daf ma yéene jàmm nit boo xam ne la ñëpp la yéene jàmm Viviane foo wéeteeg moom luy reetaan loo nit rek lay wax boo amee problème mu jug taxaw ci ba pare surtout amul yaay amul papa di jigéen uuf ay njabootam nekk gaynde mi ngi ci seen école mu ngi ci seen ay bien nekk ci lépp loo xamante ne rek moo gën ci njabootam moo tax euh, dam kay ñaanal ci sama biir xol euh, Serigne Saliou rek laa am yàlla na ko sëriñ saaliw mi ñu bokk téyal boppam ci barki wasilaam bi mu yaakaar muy soxna waalo dañ bokk même yoon euh, bokk tamit li nga xamante ne nii mooy ki ñu gëm moom alalu ko tedd ki la ki ma yaakaar moo ko tuddee soxna jaara xam nga kon man ak moom dañu bokk yoon te maa ngi ñaan li muy sonn ci nit yi rawatina man man ku dul gërëm nit doo gërëm yàlla te Viviane problème bu ma am dama koy gis problème ay temps sax dama koy nekk di ko nax naan ko allo Thio nangam ak nangam mu ne ma waatal ma ne ko wooy Thio lii moom mu ne ma fon nga nekk maa ngi yónni nit wala maa ngi ñëw léegi fekk la fa mënoo lu dul ñaanal ko yàlla bàyyi la ak moom man mënuma ko fay yàlla mi tax muy def yàlla na ko yàlla fay ci barki sëriñ Saliou yow boo ko xoolee xam na dafa tabe Viviane mooy artiste bu ragalul artiste bu njëkk a def soire génne génne dressing am yëpp ñëw may ko ay fansam bu doon kuy soor wala kuy ragal du def loolu nit bu demee ba mën a joxe li takk ci moom jox ko ku mu xamul te du ci am benn dut kooku baax na torop te soo showbiz bi dafa jaxasoo chaque jour man daf may dal su may mayee yére dañ naan ma wóorul ma ne leen yàllaay sàmm maye ci xol la soo demee ba bëgg a maye kenn du la téye bu dee ci sa deret la nekk Viviane mën na mayee lu ne Viviane lu ne ci loxoom nit a ko fa bàyyi man loolu xam naa ci dara ndax fekkee naa ko du benn du ñaar fu muy fu muy fu muy fajee ay soxla. dara loo wax mu ne ñi ma bëgg. Euh, fonk sama musique chaque jour maa ngi ñaan yàlla mu may may ndam lu ma indi ñu bëgg ko ndax nit loo gëm yàlla dala siy jàppale Euh, Viviane fonk bu mu fonk doomu aadama yi tax na su génnoon yuuxu sax dafay neex ñépp a koy bëgg moo tax li ma koy wax ne ko encore courage parce que yoon wi képp ku ci nekk dama koy xool ci sama bopp ay temps ma taxaw ci télé bi di liggéey ñépp di kontaan su ma paree damay dugg sama oto di jooy ba sama kër parce que chaque jour ñii dañuy d'accord ñii dañuy bañ kon xam naa noonu mu ma dalee te man duma dara masta moom mi nga xam ne mooy suñu star national Viviane nit ñi dañ fii dañ ko bëgg senegal rawatina ci biti li ma koy wax mooy courage gënal jàpp bu la dara tax a xàddi en tout cas jàppal bu baax sista euh, yaa ngi ci xolu ñëpp loolu daal laa koy wax jooy non dama xam ne gaynde la quoi man mi ko jege xam naa dafa jàmbaar te yow xam nga ni reportage yu bari yaa ko def mu nekk jigéen elle est seule day daw moom kese pour njabootam ak ay proche am bisaan wéet dafa metti te ñun ay jigéen lañ dañ soxla ku nekk ci suñu ginnaaw di ñu jàppale xam nga jigéen dafa bëgg ku ko jàppale ah, ma gis ni muy dawee ay temps man damay jël sax ay risque su bëggee dugg ci dara ma ne ko bàyyi ma def ko mu ne ma noo coo bàyyi rek ma lii tàmm naa ko tellement que dama koy xool ci sama bopp ba souvent dama koy yërëm mais moom gaynde la daal da ngay wéet da ngay xam ni yow yaa ko yërëm mais moom yërëmul boppam lu mu sumb rek suñ borom mën na ci teg loxo ci kàttanu Mouhamed mu daan ko. man Viviane maa ngi seetaan DK